di amaat mbégte di dellu siwaat ci suñu bindi tafsir yi suñu bindu tey nag jëm ci saar wi di suratu nasr mooy saar woo xam ne borom bi subhanahu wa taala eh, mi ngi ko tuddee saaru ngañaay la eh, am na it ay tur yoo xam ne rot na ci saar wi mu bokk ca eh, ñu koy tuddee suratu tawdia muy saaru tàggatoo nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ci junj ci saar wi ne euh, ati yonent bi sallallahu alayhi wa ak ab diggam ket jege si na mooy jege ne mu daal di dellu ci borom bi subhanahu wa taala génn àdduna kon ci saar wi loolu borom bi subhanahu wa taala ko ci junj mooy tàggatoo goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ci diir bu néew dana ko tàggatoo ak xeet wi niki noonu ñu ngi koy tuddee ba tey saar wi di suratu nasr ida jaa nasrullahi wal fath comme ni mu ñëwee ci euh, lenn ci wax yi boroom xam-xam yi ñu koy tuddee ba tey it euh, te muy tur wi gën a siiw muy suratu nasr muy saar woo xam ne mooy saaru ngañaay la borom bi subhanahu wa taala dafa tudd ci biir saar wi ngañaay loo xam ne defal na ko julli di moo tax ñu tuddee ko ko muy fi mu wax ne ida jaa nasrullahi bu ngañaayul borom bi subhanahu wa taala dikkee euh, bokk na it ci tur yi nga xam ne it nekk na ci téere borom xam-xam yi euh, comme imam at-Tirmidhi ci al jaami' jaami'u sunan li Tirmidhi mu tuddee ko ca suratul fathi euh, saaru ubbi ga nga xam ne dafa bokk kon saar yi nga xam ne muy inna fatahna laka fathan aw tur ndax saar woowu suratul fathi moom it lañ koy tuddee Euh, waaye sa comme ni ñu ko waxee woon rek tur yi nga xam ne mooy yu gën a siiw te nekk ci kaamil bi te it nekk ci mbooleem wala li ëpp ci téere yi siir yi mooy soro suratu nasri eh, mooy tur woowu noonu bu dee saar yu fan la wàccee saar yu bokk na ci saar yi nga xam ne mi ngi wàccee Madina ci ak dëppoo goo xam ne borom xam yi dëppoo nañ ci euh, te it mooy saar wi nga xam ne it mooy wi mujjee wàcc ci saar wi boo ko boolee saar wu woo xam ne Eh, mooy wi mujjee wàcc mooy saar wii kon ginnaaw bi saar wi wàccee aw saaru lëmm wàccaatul ginnaawam eh, waaye ay laaya wàccaat nañ ginnaawam ndax boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne laaya ji mujjee wàcc ci alquranul karim mooy fa borom bi subhanahu wa taala di wax ne wattaqu yawman turjauna fihi ila allah eh, suñu boroom di wax ne na ngeen ragal bis ba nga xam ne te ngeen di dellu ci borom bi subhanahu wa taala mu muy fay kenn ku nekk la nga jëfoon loolu borom xam yi dëppoo nañ ci Euh, am ci borom xam-xam yu ñuy wax ne sax laay jooju bi mu wàccee daanaka juróom-ñeenti fan lañ ci teg euh, yonent bi génn àdduna am ñu wax ne juróom-ñaari fan am ci ñu wax ne ñetti fan am ñu wax lu gën a lu gën a néew loolu waaye lii nga xam ne moom mooy saar wii moom nga xam ne saaru lumb boo ko boolee nga xam ne mooy saar yu mujjee wàcc waaye bu dee ay laaya am na laaya yoo xamante ni ñoom ñoo ñoo ko mujjee wàcc ndax laay jooju bi mu wàccee muy wattaqu yawman turja'una fi ilallah yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax saxaaba yi ne leen ne leen dugal leen ko ci saar wi di saaru baqara ci diggante laayey riba ak laay ji nga xam ne mooy laayatu dayn euh, ñu daat koy dugal foofu noonu euh, kon euh, loolu mooy lu aju ci saar wi ab wàccam kon saar wi madina la wàccee ci comme niñ ko waxee ci dëppook boroom xam-xam yi ak it mooy saar wi mujjee wàcc ci alquranul karim Euh, moo tax euh, ubaydullah ibnu abdullah ibnu utba euh, abdullah ibnu abbas saxaabi boobu daf ko mos a wax ne ko na yabna utba ataalamu axira suratin min alquran nazalat ma ndax xam nga wan saar mooy mi wi mujjee wàcc ci ci alquranul karim mu daat koy tontu ne ko am ida a nasrullahi qala sadaqta mu ne ko waaw mooy saar wi di ida jaa nasrullah abdullah ibnu abbas ne ko wax nga dégg saar woowu la saar yu nag ay laayaam muy aaya yi nga xam ne mooy ne ci biir saar yu mi ngi toll ci ñetti laaya comme niñ ko waxee woon ne bokk na ci saar yi gën a gàtt ci alquran nga xam ne saar yooyu ay ñetti laaya lañ muy saaru suratu nasri ak suratul kawthar ak suratu al asri muy ñetti ñetti saar yooyu noonu euh, gis nga it kéemtaan li ci nekk saar wu ci nekk raa ar xarfu la la jeexee an nasri al kawthari ak euh, suratu al asri loolu lépp bokk ci kéemtaani borom bi subhanahu wa taala te bu ci nekk saar bu ci nekk it daal di nekk ñetti ñetti laaya euh, li nga xam ne mooy saar wi ñëw na ci li tax euh, mu daal di wàcc euh, wala ginnaaw ba wàccee ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa dafa woo Fatima bi mu ko wooyee daal di jàng saar wi daal ne ko kat saar wi ak tàgge la ci man Fatima daal di jooy Euh, bi mu jooyee yonent bi sallallahu alayhi wasallam koy déewaat ne ko kat maa ngi lay bégale ne yow yaay ki may njëkk a fekk ci sama ci sama ah, waa kër Fatima Fatima daal di ree euh, nga xam ne Aïcha muy nettali muy nettali xadis boobu nga xam ne yonent bi sallallahu daf ko doon dee Fatima bi demee ba mbir yi jàll ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna ci la Aïcha laaj euh, Fatima xew-xew boobu lan moo taxoon mu daan ne ko kat bi la ma njëkkoon wax mooy daf ma a wax ne ma saar wi ab tàggee la ci man Eh, saar yu ak tàggale ci man ma daal di jooy te xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ab diyam jege si na jege si na mooy aw fanam léegi tey mu jeex ci àdduna eh, bi ma jooyee nag ci la ma wax rek ne ma eh, yow yaay ki may njëkk a fekk si ci sama xeet loolu moo tax ma daal di bëgg daal di reetaan yaa may njëkk fekk ci sama waa kër loolu tax ma daal di bëgg daal di daal di dee nag saar wi lan moo ko lëkkaleeg saar wi ko jiitu woon muy saar wi di qul yaa ayyuhal suñu borom subhaanahu wa taala ci aaya bi mujj ci qul yaa ayyuhal kaafiruun mu leeral ci ñaari yoon mu yoon wi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi ak yoon wi nga xam ne moom la yéefar ya toppoon euh, muy lakum diinukum waliya diin yonent bi leeral ne moom am na aw yoonam ñoom it am nañ seen yoon muy ku ci nekk am nga sa diine euh, ginnaaw loolu euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhaanahu wa taala indi saar wi di ko wanal ne saw yoon mooy yoon wu dëgg wi mooy yoon wi nga xam ne mooy ànd ak ay ngañaay mooy yoon wi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala di dimbale kon saar wi dafay ñëw di fesal borom bi subhanahu wa taala daf ciy li nga xam ne ak ndimbal li nga xam ne defal na ko ab yonentam ndax ci tàmbalik lislaam ñaari yoon ñoo amoon mu yoonu weddi ak yoonu bokkaale ak yoon wi nga xam ne mooy yoonu wetal borom bi subhanahu wa taala ak jaamu ko Euh, suñu borom subhanahu wa taala defal nga ñaay yoon wi nga xam ne mooy yoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di gàcceel yoonu weddi ak bokkaale kon loolu moo lëkkale ñaari saar yi kon ñu xam ne al aqibatu lil muttaqin comme ni ko suñu borom subhanahu wa taala waxee mooy ak mujj ñeel na ñi ragal borom bi subhanahu wa taala kon ñi nga xam ne ñoo nekk ci neen mën nañoo am li nga xamante ni ci tàmbali ga mën nañoo am ay ngañaay waaye borom bi subhanahu wa taala du gàcceel mukk ñi nga xam ne ñoo ko gëm daal di koy daal di koy topp te dina leer ci biir saar wi kon saar wi ci buñ doon tënk ci li muy wax euh, mën nañ koo tënk ci borom bi subhanahu wa taala dig na ab yonentam ngañaay lu màgg loo xam ne dana ko ko defal ngañaay lu rëy euh, te bokk ca ngañaay loolu muy fatxe màkka gi nga xam ne defal na ko ko mooy ubbite màkka euh, borom bi subhanahu wa taala defal na ko bañ ko fa génnee woon mu nekkoon ku néew doole mu dem ba borom bi subhanahu defal ko doole mu ñëw ubbi màkka daal di euh, euh, fee toj lépp lu fa nekkoon ci ay xëram kon loolu bokk na ci ngañaay li nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala na ko yonent bi sallallahu alayhi wa saar wi ni noonu it bokk na ci ngañaay li nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala dig na ko yonent bi sallallahu alayhi ci saar wi muy mu defal ko diine ji daal di tasaaroo ba ñu bëree bëree bari ci xeeti jiiri arab yeeg ak mboolem fu nit nekk di dugg si ci euh, diine lislaam du njëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di génn àdduna kon loolu lépp nekk loo xam ne suñu borom subhanahu wa defal na ko ab yonentam ngir dalal xelam te it wan ko ne ko résultat bi taxoon ngay xeex di sonn ci mbir mi ñu la santoon euh, résultat baa ngi nii wan ko ca lenn euh, muy njariñ ya mu wan ko ci lenn ci njariñ ya nga xamante ni euh, moo tax muy gis ñu bëree bëree bari ci jiiri arab yi ak mbooleem ci àdduna bi yépp ñuy dugg si ci diine yi borom bi subhanahu wa taala niki noonu saar saar wi day junj jege goo xamante ni Euh, mooy fan yonent bi sallallahu wa sallam ak dellu gi nga xam ne war na koo dellu ci borom bi subhanahu wa taala euh, jege ko nga xam ne saar dafa mel ni luy ñëw di tàgge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte borom bi subhanahu wa taala euh, santoon na ko ab liggéey mu mel ni liggéey ba nag dem na ba mat suñu borom subhanahu wa taala ñëw di ko wax ne ko nag li liñ la santoon def nga ko matal nga ko ci saar wi kon lan moo fa des mooy dellu ci borom bi subhanahu wa taala niki noonu bi ko ci saar wii ak njëggal lu màgg ak euh, nangu seenu tuub moom yonent bi sallallahu alayhi ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ci tàmbali ga ba fi nga xam ne foofu la yam kon saar wi ci mbir yooyu ci lay waxtaan ci gàttal bu ñëwee nag ci maanaa yi nga xam ne saar wi lamboo na ko aaya par aaya suñu borom subhanahu wa taala ginnaaw bismillahi rahmaani rahim dafa wax ne ida jaa nasrullahi wal fatxu euh, su nga ida jaa su dikkee nasrullahi ndimbalal borom bi subhanahu wa taala ak ngañaay loo xam ne borom bi subhanahu wa defal na leen ko yéen jullit yi wal fatxu ak fatxu makka kon li nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala wax fii ci nasrullahi mooy ngañaay loo xam ne defal na ko jullit yi euh, dinañ ñëw gën a leeral ngañaay yooyu noonu wal fatxu ak fatxu makka su dikkee euh, wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja nga gis nit ña ñuy dugg si ci diine yàlla ji afwaaja di ay mbooloo ginnaaw mbooloo mu ñëw rek meneen mbooloo topp ca mbooloo mu ñëw ba dem rek meneen mbooloo topp ca euh, lan la lan mooy xew bu boobaa suñu borom ne ko fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu loola su demee ba xew muy ngañaay li ñëw na ndimbalal borom bi ñëw na ubbil na la màkka delloowaat la màkka ba pare it nga gis ay mbooloo yu bari di ñëw di dugg si lislaam kon na nga sàbbaal sa borom fa sabbih bi hamdi rabbik na nga sàbbaal sa màgguk borom bi subhanahu wa taala akuk kaweem na nga ko sàbbaal moom borom bi subhanahu wa taala wastaghfirhu tey na ko jéggalu moom borom bi subhanahu wa taala lu tax loolu mu ne innahu kaana tawwaaba ndax sa borom subhanahu wa taala kat moom mooy tawwaab mooy koo xam ne kuy nangu tuubu aji tuub ji la te ku bëgg tuubuk aji tuub ji la ndaxte it dafay rafetal ci képp koo xam ne da ngaa bokk ci ñi koy sabal bokk yi ci ñi koy istighfar ci mu nangul sa tuub kon loolu nekk tur wii di ak tawwaab muy borom bi subhanahu wa taala tawwaab la mooy day tuub ci ñi nga xamante ni euh, ñoom ñooy tuub ci moom mooy day nangu seen tuub ba pare it ku bëgg euh, seenu seenu tuub la kon ci gàttal lii moom mooy saar wi kon saar wi guddut waaye nag bëri na ay maanaa yoo xamante ni moom la moom la làmboo ndax bu ñu xoolee ida jaa nasrullahi borom bi subhanahu wa taala daal di wax li nga xam ne moom mooy Euh, ngañaay loo xam ne dana ko defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waa Quraysh euh, mu daal di jëfandikoo euh, li nga xam ne mooy sigatul maadi fi makaani al mudaari nga xam ne waxut li nga xamante ni moom mooy bu fekkee ne ngañaay li dina dikk waaye dafa ne ko bu ngañaay li dikkee mooy dikk na ba pare mooy day wane ne kon ngañaay li dina dikk fatx Makka it dana dikk kon loolu di wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina daal di am loolu ba pare it dina li nga xamante ni moom mooy nit ñi dana ñëw di dugg si ci lislaam kon loolu di wane ne loolu luy am la luy eh, am la loo xam ne borom bi subhanahu wa taala dana ko dogal eh, loolu la luy am la eh, moo tax borom bi subhanahu wa taala ginnaaw li nga xam ne mooy fat fatxu xaybar ci la dal di defal yoon woo xam ne julli li danañ ca jaar ba daal di dem ubbi ji fi nga xamante ni moom mooy moom mooy màkka lu njëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ubbi màkka Euh, lenn ci giiru arab yi ñu bari ci giiru arab yi ñoom dañ daan wax ne ñoom dugguñu woon ci lislaam dañ daan wax ne ñoom daal nañ seetaan ci diggante yonent bi sallallahu alayhi ak aw nitam mu ñuy wax ne ñoom su demee ba borom bi subhanahu wa taala defal ko ngañaay ci aw nitam ñun bu boobaa danañ gëm ne moom kat ab yonent la euh, dinañ gëm ne moom ab yonent la ndax loolu mooy baaxu borom bi subhanahu wa taala ci yonent bu mu mas a yónni mooy yonent bu mas a yónni ci njëlbeen ga dina am problème ak aw nitam waaye alxalabatu fi nihayati lahu waaye ngañaay la ca mujj ga moom yonent bi salla moom yonent bi moom la ko borom ba di defal kon ñoom ñu daal di wax loolu bi nga demee bi ñu demee nag ba nga xam ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal na euh, suñ suñu borom defal na ko mu daal di ubbi makka ci la nag giir yi nag commencé nag di dugg ci lislaam muy li ñu tuddee lu mu fuut muy at ma nga xam ne nag ci la nit ña nag doon ñëw di tuub si euh, ñëpp jubal si Madina di tuub si booleem giiri arab yëpp jubal si Madina di si lii di fatxu màkka nag nga xam ne borom bi subhanahu wa taala yi mi ngi ko defal ab yonentam muy dellu gi mu dellu woon màkka daal koy ubbi ji daal di toj xërëm ya fa nekkoon mu ngi xewee woon ci biir weeru koor tolloo woon ñaar fukki fan ci biir weeru koor ci atum juróom-ñetteelu ba ci gàddaay ba atum juróom-ñetteelu ci gàddaay ba ci la xewee woon muy tolloog ci bu dee atum euh, ya muy ko isa muy tolloog ci 630 ci 10 janvier 630 euh, lay tolloog ci juddug euh, yonent yàlla isa alayhi salaam nga xam ne mu doon xew-xew boo xam ne ci la borom bi subhanahu wa taala daal di euh, digalee wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi muy jàng qul jaa alxaq di jàng ne ah, ne dig dikk na te li nga xam ne mooy ay caaxaan ak dem na euh, te li nga xam ne mooy caaxaan ak i luy dem la dootut sax ba faw yonent bi sallallahu alayhi wa di toj xiram yi nga xam ne moom lañ taxawaloon ca biir Kaaba ga ba pare di di jàng aaya boobu noonu di wax ne dëgg ñëw na ak neen dem na euh, kon loolu lépp di ngañaay loo xam ne borom bi subhanahu wa taala defal na ko ab yonentam euh, borom bi subhanahu wa taala bokk na ci ngañaay ak ndimbal li nga xam ne def na ko ab yonentam mu di ay ndimbal yu bari euh, yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala defal na ko ab yonentam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa judd nekk kenn amut waay jurwu wu góor Euh, dundaatut ak yaayamit lu bari ba muy am juróom benn at yaayam génn àdduna maamam ji nga xam ne moo ko bëggoon yar ko ginnaaw yaayam moom it ba muy am juróom-ñetti at mu génn àdduna yonent bi sa alayhi wa sallam nekk ab jirim moo tax suñu borom doon ko ko fàttali ci suratu wadduhaa ne ko wa wajadaka dallan wa wajadaka euh, alam yajidka yatiman fa aawa mu ne ko ma ndax fekkuñu la woon nga nekk ab jirim ñu daat lay fat kon borom bi subhanahu wa taala bokk na ci ndimbal lim ko defal foofu euh, muy mu fekk ko mu nekk ab jirim taqul ci kenn mu daat koy euh, fat ni ki noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it daal di nekkoon ku ñàkk euh, ci li muy wax ne wa wajadaka ailan fa aghna suñu borom ne ko ma ndax fekkuma la it nga daal di nekk koo xam ne ku ñàkk la ma daal di lay woomalal kon loolu bokk it ci ndimbal li nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala defal na ko ab yonentam mu daal di koy boolee it ab sang boo xamante ni muy soxna Khadija nekkoon borom alal ci màkkatal mukarrama suñu borom subhanahu wa taala boole leen euh, mu daal di takk soxna Khadija nga xam ne loolu it bokk ci ndimbal li nga xam ne borom bi subhanahu wa taala defal na ko ko euh, loolu lépp ngir lim ko lim ko doon waajal euh, li ñëw ëllëg muy yonent gim ko yonent lim ko gim ko yónni euh, ni ki noonu it mu nekk koo xam ne xamul woon dara jàngut mënta bind suñu borom subhanahu wa taala daal di wàcce ci moom téere bi gën a màgg mu wax ko ne wa wajadaka dallan fa hada ma ndax ñu la nga nekk ku réer suñu borom subhanahu wa taala daal lay gindi wàcce ci ob téere comme ni mu ko waxee ci beneen aaya wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri mal kitaabu wala al iman suñu borom ne ko ni ki noonu lañ wàccee ci yow ab téere boo xamante nii kat yow nekkoo woon di xam dara xamoo woon ak ngëm ah, maa kunta tadri mal kitaabu xamoo woon ab téere wala al iman te xamoo woon lan mooy ngëm borom bi subhanahu wa taala kon yooyu yëpp bokk ci ndimbal yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala defal na ko ab yonentam ah, loolu lépp nekk ay ndim ay ndimbal ak ay ngañaay yoo xam ne defal na ko ab yonentam niki noonu it ci njëlbeenu lislaam nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ku tumuranke moom ak ay saxaabaam ñu lor leen ci côté bu nekk suñu borom subhanahu wa taala daat koy defal it li nga xam ne moom mooy ndimbal euh, daat koy defal it li nga xamante ni moom mooy ngañaay moo tax borom bi wax ne wa illa tansuruhu faqad nasarahu llah su ngeen ko dimbale wut suñu borom subhanahu wa nee na moom moo koy dimbale loolu euh, yon borom bi subhanahu wa taala mi ngi ko wàccee cëpp yonentam ci ba mu nekkee ci xaaru xiraa di gàddaay jóge màkka daal di jëm madina mu koy jàng illa tansuru faqad nasarahullah su ngeen ko dimbale ba génnee ko dëkk bi suñu borom subhanahu wa taala dimbale dana ko dimbale ndax ba muy euh, génn dëkk ba booba la ko doon jàng dellu siwaat na ci dëkk ba ba daal di gañe ñi nga xam ne ñoo ko génnewoon ca dëkk ba daal leen di noot daal leen di noot niki noonu borom subhanahu wa taala dimbali ko daal koy booleeg waa Ansaar muy ñu ko jàppale ñoom it euh, ànd ak moom ci xeex yi mbooleem xeex yi mu doon xeex ba pare dimbale ko dimbale ay saxaabaam loolu lépp euh, suñu borom subhanahu wa taala daal ko koy defal niki noonu it ci ghazwatu badr nga xam ne ñu nekkoon ñu néew ñoom jullit ñi néew li nga xam ne mooy ay ngànnaay suñu borom bi subhanahu wa taala koy dimbali ci yéefar ya mu daal di koy wax ne wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla suñu borom subhanahu wa taala ne kat xettali na leen dimbali na leen ci xare bi nekkoon xare badar jamono ja ngeen nekkee ñu néew jamono ja ngeen nekkee it ñu néew doole jamono ja ngeen nekkee ñu doyadi kon loolu lépp nekk ay ndimbal yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala defal na ko ko niki noonu yi koy dimbale ba mu tasaare diine ji ba mbooleem xeet yi nga xam ne ñoo doon dund ci jamono jooju noonu ci jaziratul arab euh, daal di ñëw dugg si ci euh, diine ji nga xam ne moom mooy diine l'islam comme ni mu ko fàttalee ci saar wii nii euh, ginnaaw bi borom bi subhanahu wa waxee lii nag ba pare lan la ci teg mooy fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu kon ginnaaw ndimbal lii lan moo ci war moom mooy nga sant sa borom na nga ko sàbbaal ba pare jéggalu ko ndaxte borom bi subhanahu wa taala kat moom kuy nangu a tuubuk aji tuub ji la te ku ko bëgg la kon lan mooy war ginnaaw bi borom bi subhanahu wa defalee ndimbal yu bëri yii nii defal ko ngañaay yu màgg yii nii ba mu tasaare diine ba mbooleem xeet yépp wut si wutal si ko di dugg ci diine kon lan moo ca topp mooy mu daal di tudd borom bi subhanahu wa taala mooy fi ko borom bi wax na ko fa sabbih bi hamdi rabbik na nga tudd sa màggaayu borom subhanahu wa taala te it na ko sellal ci bépp manki manki na nga ko sellal ci bépp ayib na nga ko sellal ci lépp loo xamante ni lu matadi la ndax borom bi subhanahu moom mooy ki mat ah, moom mooy ki mat ah, te it na ko sant ndaxte moom moo la defal xéewal yii nii amul keneen ku la ko mën a defal te it am na ay yonent yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala yónni woon na leen lu la jiitu te defalu leen woon defalu leen woon xéewal gii mu la defal kon na ko sàbbaal na nga ko sant ndax am na ci yonent yi ñoo xam ne ba ñu woowee seenu nit am na ci ñoo xam ne sax dañ leen a mujj daal di faat faat seen bakkan euh, kon loolu lépp borom bi subhanahu wa taala moom mu sàmm ko ba defal ko xéewal gu màgg gi moo tax mu daan ne ko fa sabbih bi hamdi rabbik na nga sabbaal sa màggug borom bi subhanahu wa taala ak matam euh, wastaghfirhu ñaareel bi mooy na nga ko jéggalu na nga jéggalu borom bi subhanahu wa taala ndax xéewal yi mu la defal kat mën naa am nga gàttañ lu ci eh, sant gi nga koy sant kon bu boobaa na ko jéggalu li nga xam ne mooy li ci manqué euh, li ci manqué ci euh, njëggalu googu ci sant googu ngay sant borom bi subhanahu wa taala ak sabbal googu nga koy sabbal ak euh, matal googu nga koy matal te xam ne moom mooy ci mat moom borom bi subhanahu wa taala kon bu boobaa bu fekkee ne am na lu ci wàññeeku wala taxawee woo ko comme ni mu ware bu boobaa istaghfirhu na nga ko jéggalu moo tax Aïcha daan wax ne ginnaaw bi nga xam ne laay ji wàcc na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana bëril di wax wala saar wi wàcc na yonent bi daana bëril di wax ne subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi daana wax ne man maa ngi tudd selluk suñu borom bi subhanahu wa taala maa ngi tudd tudd it ak màggaayam aku kaweya kawewaayam maa ngi koy jéggalu di tuub jëm ci moom Aïcha ne yonent bi daana bëril lu mu daan wax lii ginnaaw bi saar wi wàccee nee na ma wax ko ne ko fa qultu lahu ya rasulallah araka tukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilay gis naa la kat ngay bëril kàddu yi di ko wax lu bëree bëri lan la ko yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ko daf koo wax ne ko inna rabbi kaana qad axbarani anni sa ara calaamatan fi ummati wa amarani ida raaytuha an usabbixa bihamdihi wa astaghfiruhu innahu kaana tawwaaba faqad raaytuha mu daan ne ko man kat sama borom daf maa xibaare ne ma da nga gis màndarga ci saw xeet soo demee ba gis ko nag nanga nga daal di sabbal sa boroom na nga tudd ak màggaayam ba pare na nga koy jéggalu say bàkkaar ndax suñu boroom subhanahu wa taala dafay nangu tuubuk aji tuub ji eh, mu daal di jàng saar wi moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne gis naa li nga xam ne moom la ma sama borom subhanahu wa taala digal ndaxte defal na ma fatx defal na ma nasr defal na ma ubbi makka defal na ma it li nga xam ne mooy ngañaay gis naa nit ñi ngi ñëw di dugg si ci lislaam eh, kon moo taxoon mu doon bëri li nga xam ne mooy subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa daana wax ci ginnaaw bi nga xam ne saar yu wàcc na mu ne inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fi l yawmi akthara min sab'ina marra muy wax ne man dinaa tuub danaa jéggalu sama borom di tuub di jëm ci moom ci benn bis lu ëpp euh, juróom-ñaar fukki yoon ci beneen riwaaya muy wax ne euh, fi fi l yawmi mi ata marra bis bi danaa ciy tuub di jéggalu suñu borom subhanahu wa taala lu mat téeméeri yoon euh, ndaxte borom bi subhanahu wa Euh, moom moo ko ko sant moo ko ko digal ginnaaw bi mu desee gisee mandarga yooyu ko borom bi subhanahu wa taala wax ci saar wii nii muy ñetti mandarga yooyu mooy borom bi subhanahu wa taala daat koy defal nga ñaay daat koy dimbale ci ay noonam ba pare borom bi subhanahu wa taala daat koy defal mu fatx makka mooy mu daal di delluwaat makka ubbi ko toj xéram ya fa woon borom bi subhanahu wa taala defal ko it mu gis mbooleem xeet yi di ñëw di dugg si ci lislaam moo tax mu daan bëril di jéggalu borom bi subhanahu wa taala ak di tudd ak sellam ak di tuub di dellu ci moom Euh, suñu borom subhanahu wa taala it daal di tëjee saar wii ne innahu kaana tawwaaba suñu borom nee na moom kat day nangu tuubuk aji tuub ñi euh, ba pare ku bëgg la euh, tuub nit ki doomu adama ji di tuub di dellu ci moom moo tax borom bi wax ne huwa alladi yaqbalu tawbata an ibadatihi an ibadihi huwa alladi yaqbalu tawbata an ibadihi suñu borom nee na moom mooy kii nangu tuub tuubuk jaamam yi kon jaam bi nga xam ne dafa tuub dellu ci borom bi subhanahu wa taala suñu borom dafay nangu ak tuubam suñu boroom it di wax ne wa yuhibbu tawabin inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin suñu borom nee na dafa bëgg euh, tuubkat yi ñi nga xam ne dañuy tuub di dellu ci moom di wax it ne wa inni la gafaarun liman taab suñu borom nee mooy kii jéggal ki nga xam ne dafa tuub dellu ci moom wa amila salihan ba pare jëf-jëf ju rafet summa ihtada ba pare daal di sax ci ak njub kon ñi ñaan borom bi subhanahu wa muy tuub di dellu ci ñuy tuub di dellu ci moom moo ñuy jéggal mboolem loo xam ne suñu ay bàkkaar la comme ni mu ko diggee ci li nga xam ne moom mooy ci saar wi te mu saxal ñu it ci ak njub kon borom bi subhanahu wa taala ginnaaw bi nga xam ne defal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gu màgg gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it nekkut koo xam ne ku bew la nekkut koo xam ne it ku euh, waru la ginnaaw bi ko borom bi subhanahu wa taala defalee ngañaay lu màgg lii ci ay noonam nga xam ne ba muy génn màkka nekk koo xam ne ku tumuranke la moom ak aboubacar kese ñu ànd waaye ba mu fay dellu siwaat ci razo ci xare bi nga xam ne mooy fatxu makka ànd ak ay junni junni ci ay saxaabaam ñu daal di euh, génne waa Makka ña ca tuub daal di tuub daal di euh, dugg ci lislaam mu daal di toj mbooleem xërëm ya fa nekkoon kon loolu bu mënoon na bu loolu jàllee mu daal di euh, kañu daal di bàkku daal di kii waaye loolu lépp dalu ko waaye dafa borom bi subhanahu wa taala koo digal ne ko na nga tuub na nga jéggalu na nga sant sa borom na ko màggal na nga ko sabbal kon loolu mooy li war ci xéewali mooy nit ki ginnaaw xéewalu borom bi subhanahu wa taala mu sant ko sàbbaal ko jéggalu ko ci gàttajlu gi nga xam ne danañ ko def ci euh, sant googu mu sant borom bi subhanahu wa taala kon lii mooy lii aju ci saar wi di saaru màgg wi borom bi subhanahu wa taala di ci tudd may yi nga xam ne defal na ko ab yonentam te it di yëgalaale xeet wi ci jamono jam koy wàccee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat ak delloom ci borom bi subhanahu wa taala lu jege si la ndax mission bi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala santoon na ko ko matal na ko ba mu mat sëkk matal na ko ba mat sëkk kon lan moo ci des mooy delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala moo tax saar yu bi mu wàccee yàggatul dara eh, ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di génn àdduna comme niñ ko waxee mooy subhanahu eh, wa mu xiir ñu ci njub tey mu rafetal suñu mujj bokk boole ci ñi nga xam ne lii mujjee nekk seeni wax moom mooy jéggalu borom bi subhanahu wa taala ak